Euh, maa ngi tudd Cheikh Sène nekk jàngalekat euh, di euh, électeur fi nga si école Cheikh ibrahim ñu à 8 heures ngir bëgg def li nga xamné si devoir citoyen vraiment impression que fi am que gis nañ nit ñi ñëw nañ en masse fi nga xamné si école Cheikh ibrahim ngir que sanil nga si faral ci élection présidentielle et pour l'instant mon nañu wax ne mi ngi déroulé comme il comme il se faut force de l'ordre yi ñi ngi fi bureau de vote yëpp tijjeeku na responsable politique représentants yi mandataires yi ñëpp nañ donc euh, am nañ yaakaar dans la sérénité élection yi manam dina aboutir niñ ko bëggé inshallah allahu rabbi voilà ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom que le meilleur gagne euh, ñu def ko dans les règles de l'art kenn ku ci ne dem ñibi ci jamm mu bañ and ak ben jafé jafé assalamu alaykum wa rahmatullah ginaaw buñu sante yalla julli ci yaronte bi alayhi wa salam di sante Serigne Touba bu baakha di wax jaarama mam Cheikh ibrahim Fall wa ñi ngi ñew rek fassiyene voter ci si ci ci niñu ko suñu sat rew may waye nak wax deug yalla euh ñu fi tayé ba gisunu fi ben jafé jafé de gisunu fi ben jafé jafé amu ben problème wax deug yalla ñepp nga tok ci calme ku nekk yaangi xaar yaangi sa bureau de vote di rang pour mën a xaar sa sa sa kii ak sa nga mën a voté ci jàmm delluwaat ci jàmm waaw loolu daal moo fi indi ñëpp te wax dëgg yàlla lii moom bu continuer moom jàpp nañ ni moom dama dana dana dana baax daal parce que gisuñu fi benn problème gisuñu fi xëccoo gisuñu fi kenn kuy kaas wala kuy kuy kuy kuy ñaxtu leen kon loolu sant yàlla la. ñu ñaan yàlla rek mu jàll ci jàmm te yàlla wis ci ndox mu sedd ki gañee gañee ki nga xam moom lañ gañee moo xam nañ moom lañ gañee ñëpp ànd nekk nekkaat ci jàmm ndax lépp Sénégal la rek dara génnul réew mi. waaw sant yàlla rek waaw xëy na nag euh, du mën a ñàkk parce que affaire yi des fois mu demee noo xamante ni nit ñi day bari bari waana goo xamante ni pour kenn ku nekk yaakaar ni da ngay ñëw rek voté rek dem du yomb waaye nag sant yàlla nag ku nekk toog xaar rek te xam ni li ñu fi dajale moom kenn ku nekk loolu mooy sa itte yàlla mën nañoo jàppale ñu yëpp ànd ci àntu ci jàmm ku nekk voté ci jàmm rek dellu caat ci jàmm loolu rek moo am solo. ñëw fii di voté ci centre Cheikh Moustapha Fall mais affaire yi moom ni muy déroulé yeex na trop vraiment yeex na yeex na te dafa am ñuy ñëw ba fii bu ñu egsee am na ci kenn ku ma gis léegi Daru Tanzir lay voté mais bi mu ñëwee ba fii agent bi nee na ko Daru Tanzir nga jëm moom nee na nag fii lañ ko orienté mais amul benn explication bu leer daal naa loo war na taxaw quoi ok merci. waay waay waay y a beaucoup de tardement parce que y a des gens qui viennent pour voter

ñu ne sunu wàll wéy na waaye sunuy tax noy def li ni def ay bu doon loolu dañuy teud rew mi nak sopp ko dafa baax am solo lol kep ku fi nek yalla la yalla defal lo xamé ni da ko mala yor ci normal ñepp and ñepp ci seen bop ci dara ge yonenté bi loolu rek la ñuy ñaan waaw ñun biñ fi xëysee suba ñi ngi aksi ay 8h ay 8h moy yoy rek biñ aksi nak fekk nañ yenn bureau yi di dox waye man bureau bi ma war a watee fekk naa tàmbaleegut ba huit heures. mi ngi doog a tàmbali huit demi. day doog a tàmbali. loolu nag loolu nag yoon la nag ñu wax ko su ko defee bu ñu tollee si dix huit am ñu wuteegu ñu ma leen a jàllale. waaw ñu mën leen yokkal. waaw woote bi de ñu ngi ñu ngi mi ngi doog commencé nii ñu ngi ñu ngi doog a pour war a woote quoi waaw wax dëgg nii moom jaar na yoon moom waaw dañuy ñaan yàlla rek maanaam woote si jàmm ki ko ñëw ki war a jël réew mi rek jël réew mi loolu daal la ñuy ñaan yàlla waaw kese. mais vraiment réew mi instant vrai moom rafet na moom yàlla na yàlla na commencé yàq waaw. waa takk di ñu ku ñëw dinañ wax bi ngay voté nga dem nga dem voté waaye wax dëgg yàlla moom affaire moom jaaragul na yoon moom instant bi nii wax dañ ñaan yàlla mu jaar yoon kon ne. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp. waaw fii moom yeewu nañ ci jàmm xëy école bi nit ñi génn nañ ma ñëw voté si vote yi ni muy doxee nag wax dëgg na yàlla macha allah nit ñi ñu ngi ñëw rang yi am na mais ñaa ngi voté ci jàmm ak salaam yàlla na continuer nii rek ba ngoon ak jàmm incha allah. jaajëf waaw salaamaaleykum waa Sénégal Sonko Diomaye Diomaye Sonko bu baax ngi nii de koy voté ji rek jëlal Sonko Diomaye mooy Sonko.